Gaston Production présente le cadeau du nouvel an. mbokk yi la premier janvier 2023 ca arène nationale. Balla Gaye numéro 2 le fils de Double Less gaynde géejiwaay gaa ngi noonu xale bi nga xamante ne saa bu géejiwaay soxlaa mu jëli ji andi. mu war a jàkkaarloo nag ak Boy Niang numéro 2 le fils de Dégol cappaacoli baa ngi noonu ki nga xamante ne ni moo nekk ci xolu waa Pikine. moo tax ma ni c'est le combat de tous les dangers. Abdoulaye dàquma bëri dàquma xeex bu ñu wuree ci bëri nga xam ne moom dàquma bëri dàquma xeex làmmiñ nag aslem la nga nekk di wax lu la neex tamit ku daan sarax moom bu ko neexee wax dëgg yàlla daanu ñeenti yoon ci làmb yéeme woo bu dee làmb la mën naa ko jàngal bëri entraîneur am moom ci boppam ma jàngal ko bëri jàngal ko ni ñuy tactique de combat liiral ko ni ñuy mbëree ba bi siflee rek man la ku moom sax mën naa la ñii laa koy daane sama xel waxuma la ak moom tuuti na ci loolu Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro 2 loolu yëpp nag mbokk yi di ngeen ko seetaan en live pay per view ci seen affiche point com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñoo ngi fi arène nationale fekk fi Boucher 2 ah rakk ci Boucher yaakaar naa waaye Yaram Art Events ñoo ko war a wutal adversaire mu baag léegi nag gars yi ñu ngi wër ah ñii mu bëgg leen ñii duñ ko bëgg ñëw fas yéene waxtaan ak moom rek ndax Yaram Art yaakaar naa ne fas na yéene boole la le 24 décembre fii ci arène nationale combat bu war a dox ci diggante Tapha Mbeur ak Gamou gi Ketchup numéro 2 wala Boucher 2 maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Eh, maa lay fay comme ni ma la daan fayee rek di la jox sa waati waaye comme ni ma ko daan joxee ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu samay mbokk sama yaay sama papa samay mag samay rax sama booy waa Afia xam nga. Mm-hmm. waa Kër Mbaye Fall di leen sant ooma seen fay bu baax a baax ndax jiital rek bëgg na la. Mm-hmm. waaw aw ma seen fay quoi. comme deux combats deux victoires boobu ak léegi adversaires yi am na ñoo bëgg mais am na ñoo xamante ne tamit bëgguñu la am na ñoo xamante yow tamit bëggoo leen lan moo tax euh, soit tànn bu bari bi kii di tànn kii kii di tànn yow ngay bañ kii ñi di la bañ. yeah xam nga chaque jour làmb da ngay xool sa carrière quoi làmb carrière la ak parmelès man awma kenn ku may ragal si làmb parce que ni ma war a bëreel ñëpp xam nañ leen quoi te bëri naa fi ay boy. man ak ñoom làmb boole ñu ñu may daw koo woo sa sa manager bi naan la ay non yaa ëpp doole wala lii wala laa xam nga ñu bëgg la jox mbër boo xam ne am na 10 combat bëgg a jaar sa kaw yéeg xam nga genre affaire yooyu noonu bàyyi ma fi kenn nag quoi mais malheureusement moom ku ñëw ma bëreeg yow. Hmm. waaw ku ñëw ma bëreeg yow sànq proposé nañ la benn adversaire nga bañ. waaw mais kooku bëriwul amul combat kooku bii bii lañ wax ne mooy premier combat ku bëree am combat dama lay jël. Hmm. waaw man bàyyiwuma kenn si làmb waa Kër Mbaye Fall rek laa bàyyi. Hmm. du waa waaye du waa feneen ak feneen. Hmm. Géejawaay am naa fa ay adversaire. ñun ñooy say adversaire Géejawaay. ku si mel ne ay ñoom Boussita gaa yooyu noonu. Boussita man da nga bàyyi Laurent léegi yaa ngi ci Boussita. non ñoom ñëpp combat lañ ku dem bay laaj Laurent war a mën a bëreeg Boussita parce que Laurent moo daan Boussita. mais Boussita est-ce que di ngeen bëre est-ce que ko fi di da nga bëreeg Boussita ak Boussita dëkk Géejawaay ah sa mag di ko ànd ak moom bu dégg euh, bëccëg suba nga déggoo lu ma laa xanaa man bàyyiwuma kenn si làmb lu dul waa Kër mbay Fall moom géejawaay la dëkk man Kër Mbaye laa dëkk. mais buuse Kër mbay Kër Mbaye fële la géejawaay. Kéjog la. moom na ñëw ñu bëre su boobaa ngay xam parce que man Kër Mbaye Fall laay représenté waa Kër Mbaye Fall combat bu ñu bëgg laay bëri xooluma lu keneen bëgg de comprends nga Bou Siteu bu ñu ma ko joxee suba na lekk sama avance ma jàpp ko daan ko jël bu rëy. Bou Siteu est-ce que mën nga ko daan. waaw yow Lamine seetaan nga samay komba dafa metti may wane der wane gëm sam bopp man bu man ku ñëpp ne moo ma mën sax laa gën a bëgg waaw bu nit ñu àndut man man damay ànd ak sam bopp gëm ni man kese damay def li ma war a def te buusita maa ko mën maa ko doole. nekkuma fii sax di ko laaj di ko may ay wax nii ay wax ay wax si biir wax mais buñ ma ko joxee ma bëreeg moom ak ñeneen ak ñeneen. kon sérieux da ngay bëreeg waa Géejawaay sérieux. lu may bañ si waa Géejawaay man Géejawaay am naa fa ay xarit am naa fa lépp mais nekkul sama baas nit ragal féere day xañe wërsëg Kër Mbaye Fall laa dëkk moom laay tiitaroo moom laay ndamoo ñu koy wax KMF foofu la am kon mbër bu ñu ma jox damay bëreeg moom. biir Géejawaay biir Géejawaay. dawuma fa kenn. mais guuma nga bëri ñëpp parce que buuse moom moom buuse lu tax du ko nangu. aussi man damaa tudd buuse rek de. bokk ak moom ndey ak baay bokk rek. waaw mais moom moo dox yoonam may dox sama yoon. mooy sa kilifa may ànd moom wala may ñu bokk. feneen mais ne mooy sa kilifa laa wax. kilifa bi lenn la rek muy kilifa biir kër mais biir làmb ji amul kilifa làmb ji damay dox sama yoon muy dox yoonam. Hmm. di xëy di wuti mooy xëy di wuti noonu la demee rek. bëre woo moom bëre da ngay bëre kii jox ma bëre moom waaw man waa Kër Mbaye Fall lu ñu bëgg rek laa bëgg de te ñoom bëgg nañ combat boobu noonu. Laurent da doon ko ko fi laaj maa naa léegi moom daf mel ni da wala da ngaa découragé. non xam ngeen nu mu demee kooku man moom cent ans quatre dama koy daan chaque jour saa yu yeewoo ba si audio ak whatsapp sax dama ko si daan. kooku dama koo jekku bu yàgg mais du si ay gàllaaj yi nii affaire yooyu de. dama ko mën xam na loolu bu baax kooku ba may jugee sama combat ceeb bu xonk lañ daje man ak moom mu ne ma barki alxuraanu karim yi boo daanee ceeb bu xonk ma jël la mu gis ni ma daanee booy bi mu génnaat si loolu ba set wecc ne ma bëréew ma ak léegi dama laa ragal moom moo wax loolu si gémmiñam kon du ma moom comme que wàccoo naa ak man ne dama ragal rek kon nekkatul ma ak moom l'essentiel daal na nit ñi ñëw ñu bëre xam nga làmb ji neex ko waa parce que nit ku nekk ak sa gëm-gëm de. moo la wax doo laa ragal. moo ko wax si géem. gëm nga ne daa ragal wala loolu moo am parce que ku dem bay jël alliance Balde mu daana barki Dembo Ndiaye nga xam ne alliance Balde ñetti tànk wala maanaam ñetti daanu daanu na ko fi ñetti victoire ñetti défaite ci mbër nga jël ko nga xam ni kooku day day daw ay adversaire deux combats deux victoire mu am deux combats deux victoire mais moom nee na douze victoire la parce que dafa daan comme dix victoire. waaw léegi moo tax nag ku am dix victoire kooku noonu war a ñëw ma daan ko pour mun am douze victoire comme moom comme que moom noonu la ko planté. Hmm. na kee ñëw bunt bi la parce que man moom laa gën a xiif quoi Laurent. Laurent waaw Laurent gën a kooku dama ko bëgg a añee benn tàkkusaan. moom Laurent. bilaay kooku man ak moom gëmoo leen li ma leen di wax. Hmm. buñ daje woon si mbedd sax mu ko. Euh, ma def ma dara. plateau dafa am est-ce que am na combat yéen ñaar dafa war a leer yàgg booy plateau. non plateau. kooku trois combats deux victoires benn benn defet yow nga am deux combats deux victoires. Lamine man plateau ay waxam du ma ko wax maa ngi moom ñoo njëkk a toog si kii xam nga maa moom ñoo njëkk a toog si plateau suñu combat taxawul bu taxawul ba léegi nag dootul taxaw. Hmm. waaw mais pare nga pour bëre moom. man nee naa la bàyyiwuma kenn ku dul waa Géejawaay. waaw. waa Kër Mbaye Fall kese du leneen ku ma fi xaar wala ma fi benke ñenke te ku ma boolal ma duma ko ay xiir laa yor de. waaw xiir yu saf barki yàlla. ku la ma ñaf yow li ma lay wax nii waxoon naa ko sama premier combat gëmuñu ko ma waxaat ko deuxième bi gëmuñu ko troisième bee ñëw. maa ngi nii ma duma waat. un giga. kooku man ak moom du làmb kooku benn benn tànk laa koy jox rek du si mën dara kooku cëram du làmb hmm. waaw amul place ci làmb amul place ci làmb ndax man bu dee man ak man la rek dama koy dóor mu wàcc du ma nekk fii di ko nekk fii affaire yooyu dama koy dóor rek mu wàcc daa jege suuf non dafa jege moo tax am ngeen ay combat de wala say copain am nañ combat euh, Zambala am na combat de mu war a def retouram ñu ko jën koo gis loolu mu war a bëre Boy Faye. yee Zambala am na combat te tamit du ma ne ko amoo combat parce que man mbër bu mu munti doon boo jëlee avance rek am nga combat ak lu mu mën-mën xam naa ko bu baax yow xam nga ko ñëw nga fekk muy contact day mm-hmm. rangale ñëpp daan leen kon kuy def loolu mbër nga kon dama koy wax mu gën a yokk entraînement yi gën a yokk gëm-gëm bi xam nga xam ni mbaaw Kër Mbaye Fall ñëpp a ngi si ginnaawam. Mm-hmm. te billaay day am lu baax na xool bi dafa rafet day xëy dem liggéey di nappi ji barki yàlla xam nga nit kuy def loolu da koy naw quoi ñaanal ko jàmm balaa ngay tàggatoo lan ngay wax adversaire yi wala jël xool leen ci waa adversaire yi nañ ma jël amul ay mboq ay xarit ay yii nii nañ ko jëlee tegee ko ne yooyu doxatul si làmb sport la affaire de sport la ñooy mayante suñu biir ñooy mayante lépp suñu biir ñëw leen ñu bëre yaa ngi dégg fii ku bañ kii war ngaa mën a jël kii ñëw leen ñu bëre man ak yéen ñu jongante ñu xam ni ku si nekk xam kan mooy sa waaw yaa ma gën a xam. voilà nee naa leen nag général bi man la te après ngeen koy comp. kontaan naa ci waaw maa la maa ngi lay fay Lamine bu baax a baax di la gën a bëgg nag di sant papa kii sama grand la sama xarit la barki yàlla ku ma bëgg la di ko wax fépp di ko wone fépp moog magam moog raxam karaa xam nga Kara yow xam nga ko sax dalay defaral ay bagage ay t-shirt ak kaas ak lu ne. ok waaw. di sant sama booy waa affaire bu baax di woo nag combat bi le 24 décembre bii ñu jëm nii di si woo ñoom Babs comme dab ñu ma doon jàppale Amina ah ndaxte gay transporteur mooy NGT comme ni ma daan woo rek di woo waa Kër Mbaye Fall bu baax ñu gën a mobiliser jàppale ma xam nga. di woo Ketchup di ko soññ mu gën ñoo jàppale xam ne ay ndaw lañ tamit xam nga waaw fii moom nañ ñu nañ ñu gën a teg loxo daal parce que tamit làmb moo laaj teg loxo comprends dafa metti ko waa parce que man li may liggéey laay jël di ko def si làmb xëyuma toog ko waa su ma xëyee toog liggéeyuma du ma ndékki day metti si man trop kon gars yi nañ si gën a jàpp damay liggéey di def si làmb kon dama bëgg làmb sama cër si làmb la te dama koy jël damay fay làmb làmb di ma fay yoon la nag